bés binu jagleel wàllum garab ñu koy amal ñeenti fan ci weeru août ci dëkk bu sell bi di Touba xew-xew bi nag njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye moom moo koy taxawee lu aju ci wàllum organisation bi daanaka lépp yemb na ngir nag daloo bés bi ci dëkk bu sell bi di Touba eaux et forêts ak Touba ca kanam joxante yoxo ci liggéey bi nu mel. Euh, ñu ngi fii ci héliport pour préparer demain reboisement bi nga xamante ni nii le président de la république moom moo koy présider. donc euh, espèce bi ñu ko consacré pour mu pour mu pour mu jëmbat ko mang manguier lay doon mais ñun mais ñun xaaruñu pour ba ba mu ñëw suba pour mu reboiser manguier bi dañuy ñëw pour préparer le terrain déjà boo xoolee équipe bi def nañ trouaison yi posé nan gabion yi nga xam ni suba. tout est fin prêt dañuy ñëw rek reboiser. ginnaaw bés bii nga xam ne nag ci la ñuy jëmbat garab yi bu nu ko weesoo eaux et forêts nii daanu gën a lëkkaloo ak Touba ca kanam ngir nag lu aju ci wàllum toppandi gi ñu mën ko jëmmal la ak ñaari weer. ba c'est juste euh, cérémonie de lancement mais campagne bi ça ça peut durer jusqu'à deux mois donc ñun on est présent pare nan ci deux mois yi yëpp pour accompagner population accompagner Touba ca kanam ñu reboiser axes yi ba pare kër yi ci nekk ñu accompagner leen wan leen nan la ñuy jëmbatee garab sensibiliser leen aussi ci ci toppatoo bi. Touba ca kanam naka jekk nekkoon ci taxawaay bi nu mel moom itamit amal ci taxawaay bu ràññarleku bés bii nag ñu dugal ci seenub yoxo ci wàllum garab. axe yi ñu choisiroon duñ ci am ndax dañ ko yokk ndax ñu dañoo choisiroon axe Cheikhul Khadim ba gaaraasu daar mooy hôpital Cheikhul Khadim bi foofu 7 kilomètres de part et d'autre la. côté bu ne war a am 700 garab muy 1400 garab moo fa war a nekk dèjà def nañ planté nañ ko pare ak sa Ndindi mooy rond Daara Daara Jolof ba Kër Sëñ Abdou Karim foofu 3 kilomètres 500 la côté bi ak côté bi côté bu ne cinquante garab. muy 700 foofu def nañ ko ba noppi. dëkk bu sell bi di Touba moom may daloo bésub ñeenti fan ci weerub août ngir nag màggal bés bi nu jagleel wàllum garab kuréel yi fii di yëngatu ci wàllu boobu yépp taxaw temm ngir nag nu nu gën a ñoŋalee bés bi njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye moom moo ko nar a taxawee. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.